sànq ba léegi si logique bi nga nekk moom moo di ne Amadou Ba nekk na biir alliance pour la république xam ngeen ne dañ koy xeex benn moment nekk na en disgrâce président porté ko ñu mettre ko au frigo un temps ñu ñëwaat xëccaat ko mu tegaat ñu ñëw def ko candidat amul unanimité bi ko fal ngeen gis biñ koy kii nga ne président Macky Sall takk masque mm. ñu tànn ko comme candidat yooyu yëpp ngeen gis ko mais vous vous dites que noonoo dañuy àq bu tewu ci loolu dañuy resté nit da ngay toog fu ñu lay toroxalee. waaw man ba tey ngeen agsi fii ngeen. agsi man man man bu doon man du ma dox loolu. mais moom ku ne xam ne Amadou Ba du combattant. déedéet li ne ci biir lañ bëgg nga wax ñu ko waxoo ñu ko. dama ne dama ne. nit ci la doon ñëw kaay ma rey la nga ñëw jaaxaan ñu rey la. dafa fekk am na looy ragal boo demul. kaay ma rey la kay nga indaale. nga indaale voilà ba loolu sa c'est ça <laughs> c'est-à-dire xaadim il faut nga wax ñu. maanaam aussi waxtaan bi sooy raay. waxtaan bi du neex. Mm-hmm. foog nga door ci foog nga foog nga gëmm door. waaw kay <laughs> lan moo xew lan moo tax Amadou Ba gëmm door nag jot na dangaa cof benn wax. leen door gëmm door jot na la sànq dangaa cof benn wax danga ne démission démission bi. dafa am lu bëri lu ci laxasu. <laughs> vraiment da nga sànq da nga ne démission bi dafa am lu bëri lu ci laxasu. Mm. te leera loolu ci laxasu lan te bëgg nañ ko xam muy benn. Mm. ñaareel bi moom mooy moom. comme démission bi am na lu ci laxasu ñuy wax kon lan moo lan moo tax. Mm. lan moo tax mu accepté candidat bi accepté liñ koy def yëpp ba ñu dem il faut nit ñi xam loolu pour débat bi mën a neex. waaw parce que boo xoolee. Amadou Ba lu mu Ba man mënu ma la wax ni tel tel tel mais li ma gis li nga xam ne mun naa ci ne dut baaram dama xam ni man su ma ànd su ma ànd benn combattant wala ma ànd ak koo xam ne day wuti parce que dama koy xool la majeure partie dama koy xool ci le cas de Ousmane Sonko ak euh, le président Diomaye Faye. waaw léegi bàyyi Ousmane Sonko. non non dama koy xool foofu dama koy xool foofu. mais dama koy xool le président Macky Sall moo gënoon am les les leviers. Mhm. pour jàppale pour jàppale Amadou Ba. waaw d'accord defu ko. Ah. candidat bi nanguwul démissionné. Mhm. yaa ngi dégg lan moo waral lu ca nekk ca biir li tax nga naan dañ ko doon pousse ci démission te démission bi daa am lu ne ci biir lan moo ne woon ci biir. waaw mais li ma wax loolu lañ bëgg a xam xëy na maam Biram maam Biram dindi na ko xëy na moom moo ma gën a moo ma gën a uti yow <laughs> parce que tey jii aussi euh, moom moo ma gën a uti yow dindi na ko du ma ko weddi mais man li ma jàpp. Euh. li ma jàpp bu fekkee dañuy waxtaan rek def analyse politique. Euh. li ma jàpp. moom mooy tey jii euh, le juge était prêt à convoquer le le le le le, le candidat Amadou Ba. waaw ah, xam naa ne loolu ngay ah, xalaat mais lool attention. waaw. candidat kenn mënu ko topp. Hmm. Ah comme député la mhm. waaw. si si suñu lancé euh, mais Amadou yow xam nga Amadou Ba nature am. amul nit ku ne dafay am nature. il n'est pas impulsif. loolu du nature de ragal la non dafa rek <laughs> ragal la dafa nànk rek bi tey il est patient. c'est un homme patient c'est un homme boo xam ne nit ki buggul ànd ak nit di ci am benn am benn kersa wala am benn rus hmm. ku gis ci biir campagne bi euh, benn jour dama koy tooj ma ne ko ma ne ko ma ne ma ne ko pourtant sa sa sa booy yi xam nga Macky Sall président Macky sal bu doon wax ak amadu Ba di wax ak ñoom Ousmane Sonko wala muy wax ak le président Ousmane Sonko wala la président Diomaye danaa ko sa booy yi. Hmm. wala attends attends hmm. danaa ko sa booy yi. sa booy nangam sa booy nangam sa booy nangam jour bi ñuy dàq Ousmane Sonko bi ñu ko waree dàq Amadou Ba dafa taxawoon bañ ne Ousmane Sonko kenn du ko dàq. ñoom dañu bàyyi ba Amadou Ba voyagé ñu doog a signé décret bi ko dàq. li ma lay wax nii je parle en connaissance de cause président Ousmane Sonko xam na ko. le président Amadou Ba xam na ko. le président Macky Sall xam na ko. waa déedéet xaadim léegi nag yéen lu tax ngeen toog ba tey tey tey tey lii am ngeen bëgg a euh, ci point boobu bëgg a wax ne yow mënoo go euh, Amadou Ba dafa solo doon robb avocat le président Ousmane Sonko pourquoi avoir attendu aujourd'hui pour le faire non ñoom ñoo doon wax loolu ñoom ñoo wax na parce que nit tey dañ ko doon dañ ko doon jiiñ loolu laa la wax dama ne la ñoom dañ ko doon jiiñ mais Amadou Ba kenn mus ko ñu naan Ousmane Sonko du ko attaqué man ñun ñëpp ñun dañ doon kii ñu naan non ñii ñoo bokk impôt nga dégg Bara Ndiaye toog na fii ne ñoom ñoo bokk euh, dañ daan bokk dàll yi ñuy jàppoo ki yow ko takkal jabar mais nit ki boo leen bokkee koor bokk bureau mën ngeen bokk ay kóllëre te kóllëre kenn du ko fecc hmm. moo tax ma ne le président Ousmane Sonko le président Amadou Ba dafa subir quatre-vingt-dix-neuf pour cent li mu subiir grâce à moom quatre-vingt-dix-neuf pour cent grâce à moom la moo tax euh, le président Amadou Ba am na am na force de résilience te boo xoolee 35 pour cent yi ñu ñun dañ daan dem euh, moom dafa daan dem ci voyage yi da ngay gis ci duggul ci benn dëkk bu jógee war a dem fenn bi mu yeggee ba war a dem Louga Moustapha Diop ñoom dañ ne ko wool président Macky Sall xoolal loolu ci biir campagne boo demee fenn nga ne ko dégg may déglu président Macky Sall yow la candidat la candidat ñu ne la damay déglu di mu waññeeku ñu convoqué ko mu wàññeeku ñëwaat dakaar bàyyi convoi ñëw di woo la président Macky Sall jotu ko mu envoyé ko texto jotu ko le lendemain lañ ko doog recevoir mu delluwaat ci campagne am loolu nan nga pare ci biir loolu yow nga am 35 pour cent nga am 1 million million ak juróom benn téeméeri junni ak ñeent ak junni ak euh, juróom-ñett fukk ak juróom yow Xaadim nag kuy tàggoo ñun dinañ ko jox suñu réew koo xam ne balaa ngaa def dara ngay tàggoo non tàggoowul de ah balaa moo dugg ci dëkk pour que ama il faut moo président Macky Sall dama ne la Ousmane ci biir campagne bi nañu waxante dëgg il faut qu'on soit juste du woon def dara te di soog coono. eh looloo yoon. comparé waaw c'est parce que man de ñëwal dama doon gis xoolal du def dara. parce que wax. mais il faut comparer ce qui est comparable la relation bi am entre ak que le président Macky a avec Amadou Ba. loolu mooy wax ji bokkul il faut comparer ce qui est comparable. dafa am loo xam ne xaarim daf ko junj ci accusation parce que ñi ñi ngi koy wax pour mu gëmu dóor. mais ci côté accusation yi. Euh, am na côté boo xam ne aussi danga ko ci da nga ko ci sauté xëy na Karim Wade wax na que ni il est habitué des coups bas Amadou Ba comme li nga wax nee nga xëy na comportement mooy du kuy génn di defante yooyu noonu mais nit ñi mësuñu ko gis à visage découvert muy dem di xeex am na yu fi xewoon ci ay élection yi ñu ne Amadou Ba moo moo leen loo parce que moo taxaw di di xaaral rek di di jël nit ñi ci seen kaw ak yooyu noonu fexe ba ñàkk ñenn ñi dem ci plateau yi di attaqué candidat yooyu biir impôt domaine ci biir politique bi ba bi présidentielle bi ñëwee ay accusation wu corruption mais à part accusation corruption yi am na ñu ne y a des y a des y a des choses graves ñu ko waxee y a des choses yoo xam ne dañ ne euh, xëy na sax président mënul taxaw di koy expliquer mais bokk na ci li mere Amadou Ba Karim Wade di junj ay coup ñu ne dañ dañ ko doon gasal maam dañ ko doon lan leen dëgg sërëx le président bokk na ci li ko mere est loolu c'est des situations am nga Sénégal dafa am loo xam ne baat boo xam ne Sénégal dañ koy foye mhm. mais al kazab ñi nga xam ne dañuy fen keroog yomal xiyaam yàlla da leen di ber tudd ñu leen di wooyee al kazab lañ leen di wooye mooy fenkat mhm. man dama lay li ma lay wax ni lépp lu ma ciy wax dama dinaa toog boo ne diw laajee diw mu ne la nangam ak nangam moo lay wan ni bul dégg supputation sénégalais yi mhm. lépp lu nit parce que tey jii fii dafa am cybercriminalité am diffamation doo dégg kenn koo xam ne jàkkaarloo nag Amadou Ba mu ne ko nangam ak nangam wala nangam ak nangam parce que il de des avocats tout mais un homme public. yow mii boo jógee seen kër génn dinañ la waxal. Mm-hmm. man Fazalika yow Fazalika kii Amadou Ba ñoom ñëpp ku nekk la ñuy waxal mais nit ki doo ni duut baaraam doo ni duut baaraam nga ne Amadou moo trahir de li li mu doon bañ mooy trahison boobu ñu doon wax jógewul ci moom. Mm-hmm. daf ci dem ba jeex ànd ceeg ngor. mu metti lool ci campagne bi. doo gis Amadou Amadou Ba da doon campagne ba quatre heures et quelques du matin nit ñi di génne di fees président naa ko sa nit ñi xanaa ay jinne moo leen di génnee te alors que dañ ne ko woon boo demee doo am 20 pour cent mais imagine toi bu ñu yokkoon campagne bi bu ñu yokkoon campagne bi di est-ce que 35 pour cent yi du yokk. wala mu wàññeeku ñeneen nouvelle alliance maanaam maanaam mën na yokk mën na wàññeeku. Mhm. mais loolu yëpp ci biir campagne benn baat booy wax mën na la dimbali na la yaaxal mais man dama jàpp ni. dama jàpp ni nature Amadou Ba nature kilifa la parce que tey jii euh, li ko dal dal na képp koo xam ne kilifa nga kër goo dem di nga fa fekk ay jafe-jafe mais ki nga xam ne moo am gën a ëpp capacité de résilience parce que élection yi moom mënoon nañ ko bu même bu président Macky Sall jàppale woon même bu waa APR yëpp duggaloon seen loxo parce que y avait une volonté manifeste de changement social dans le pays il faut que ñu dégg ñu xool Sénégal bi ñu jógee li ñu voté bugg gars yi dañu buggoon changement. mais Amadou Ba ci biir changement boobu il a réussi à avoir un million six cent cinq mille quatre vingt six voix. ki nga xam ne moom la tey jii ah, ñoom ñëpp dañu doon tabler à soixante quinze pour cent des voix ñi nga xam ne ñëpp dañuy wax dëgg te yàlla tax te dëgg rek xam ngeen ni Amadou Ba def na prouesse bu extraordinaire ak li ko teg donc nag dafa jot. mu leeral ne lépp loo xam ne dañ ko doon jiiñ dara amu ci. ñuy wax ne dafa am benn lëkkaloo. entre le président sortant ak ñi fi nekk parce que gis nañ seen benn naataango bu nekk APR mën nañ ko citer sax muy Omar Sow mu di ko wax ci benn plateau que ni euh, président Macky Sall da tayle après mu ne euh, dafa am benn lëkkaloo parce que da doon jàppale mm-hmm. waa waa euh, Sonko ak euh, le président Bassirou Diomaye fexe ba génne leen ñu battre campagne li am ni yëpp c'était juste benn plan bu mu tegoon boo xam ne ñoom la doon jàppale contre Amadou Ba yow yow mi ko jege Amadou Ba da ngay dëggal loolu wala tu pense que bon c'est juste des histoires yooyu ñuy raconter des histoires mais man dama fas yéene du ma wax lu mu wóorul du ma wax lu ma wóorul du ma wax loo xam ne ku ma wowoon tey duma ci mën a wax parce que fa ñuy gisee fekkewu ma ko ba ñuy déggoo xamuñu ko man daal li ma gis loo xam ne à visu mooy le président Macky Sall appui bi nga xam ne waroon na ko def ci ginnaaw Amadou Ba des na. waaw lu ma laaj yow mi jege woon yow ku jege Amadou Ba nga. Mhm. Euh, toog souvent xëy na di waxtaan. Euh, ñu bëri jàppoon ne Amadou Ba lu muy waajal président Macky Sall mooy li xew Mauritanie. Mhm. maanaam. Macky Sall jàppale ko mu falu yóbbu Macky ak ñi mu àndal prison. Amadou Ba du genre boobu. bi ngeen daan toog di waxtaan daawoo ko dégg mu naan ay ay suma faloo ñii dinaa leen def lii wala le bu amoon Kaamil dama lay waatal fii billahi lazi la ilaha illa huwa je jurer sur le saint Coran ak sama tëraay bàmmeel Amadou Ba nekkul ku mës a persécuté ko ci ko président Macky Sall te man Amadou Ba xamoon naa ni wax na ci Jeune Afrique. ne man suma ma damay def concertation national bi damay mu bu falo balaa def nii di ci dina bàyyi soo ko dina bàyyi ñu ma àndal Amadou Ba nit la koo xam ne nit ku clément la nit la koo xam ne nit ku baax la waxuma ko pour rien du tout parce que ñun tey ji comme li ma wax léegi rek yow am na 17 ans ci ginnaaw ta ñëw nga fekk nga bu dee lépp loo xam ne gor su baax da koy am am naa ko di tukki bu dee tukki tukki naa te boobu politique ma su ma demee ba dugg ci politique ba dekk ci candidat ba yàlla booleem ak Amadou Ba duma ko fenal sama nawle la sama moroomu gor la mais gis naa ni euh, loolu sax du xalaat Amadou Ba falu jàpp naan damay tëj jiw damay tëj jiw te xam nga tam ma may gën a wax la président Diomaye fay li tardel Macky Sall premier mandat mooy dafa falu jàpp Karim Wade dóor ci kaso bi jàpp Khalifa Sall dóor ci kaso bi jàpp bu Ndiaye dóor ci kaso bi il a perdu trois ans hmm. mu ñëwaat faluwaat 2019 song Ousmane Sonko boroom tabletu nen boroom table ku yenu table nen doo bëre doo xeex fekk yëggoo fi nga jëm loolu nag Amadou Ba bu faloon en tant que intellectuel en tant que ku muus mel ne da jóge ci nguur gi ba pare doog a sage quoi <laughs> non non non man am ama dama lay non man li ma man li man li ma wax mooy non man damay question maam xadi ba léegi tontoogoo ci maam xadi dafa ne ba léegi comprendre lan moo waral. Mhm. Amadou Ba ñu singale ko ba bañ koo jàppale. ba léegi waxu ngeen ko lu mu def lu mu def président Macky yow xam yow boo ko xam doo ma ci dimbali. ah yow mi non yow mi jege Amadou a a xam ni. waaw ñun loolu ñun yëpp loolu lañ bëgg a xam est-ce nekkul tukki ba mu tukki woon ca France tamit bokk ci. Ah, non yooyu moom ay waxu ay yooyu moom ay waxu créé diw def na. mais lan la lan la mais man daal li ma gis. mais dañuy laaj rek. xanaa lan la xëy rek mere ko wax dëgg yàlla man li ma gis moom mooy début bi bu fekkee bu début bi la ñëpp leeroon nañu approche am ak Ousmane Sonko moo taxoon ñu koy persécuté boobu jàll beneen bi mooy le troisième mandat man sama gis-gis laa la wax dama dañ jàpp ni Amadou Ba muyewul la mayoo hmm. si parce que en tant que premier ministre dañ doon jàpp ni parce que aussi tamit ñi nga xam ne ñëpp d'accord ñu woon ci premier troisième mandat bi da ngay xool après le président Macky Sall dafa leen sanctionné mun naa ñu bari ñi nga xam ne d'accord ñu ci woon nga xam ne dañu bëggoon ñu dem direct élection dañ leen sanctionné alors que Amadou Ba en tant que légaliste xëy na ak euh, cadre bi mu doon ak fi mu jaar ci fonction publique ak fi mu jaar ba yegg ak post yi nga xam ne moom la ko moom la jege xam na ni tey jii euh, li am li am li gën moom mooy Benno Bokk Yaakaar am candidat bu dëgër ñëpp boot ci ginnaawam ñu jàkkaarloo parce que te loolu taxul woon Benno Bokk Yaakaar gagné il faut que nit ñi delloo si xel yi. le président Macky Sall mu nekkoon candidat taxul woon mu gagné élection yi wan na la ko. moo tax man la dese ngeen a mun guerre guerre day saf mondial. gis na Amadou Ba non non gis nga gis nga tey man Amadou Ba dama koy expliquer Amadou Ba. munoon na ko def loo xam ne ci àdduna mm. waa ji dootu ko def nii mu def gis naa ne jiital nga ma yaa ngi may fa xasal ma bàyyi ba doon candidat taxaw ne la carrément dama bëgg ñi ànd ak man yëpp man bàyyi naa nañ wotal jomaay ngay dégg sa xol di dagg doo ci mën dara saa à dire defante ah. day mat. munuma munuma nga sax papa ah, dëgg la dëgg la munuma tàng instant bi sax bu tey non non non c'est-à-dire man man man déjà dama mer man déjà munuma awa ah, nga jiital ma ba pare di ma faxasal te yow nangu woo wax lan moo tax nga may faxasal. wa a ah maam Biram ñëwal maam Biram ñëwal.